à peu près une dizaine de cas bu nga xamante am na fi bon suñu déggee les 36 cas ou bien presque une quarantaine quarantaine de cas nañu xam ne nekkul la <laughs> du la nga xamante ni si commune bi la nekk mais on est presque à une dizaine donc euh, di wax nit ñi aussi ñu gën a bàyyi xel si li nga xamante ni moom mooy bi am na boo dégg nga naan mu ngi Chine ngay jékki-jékki dégg gaa naan seen a Touba ñu naan seen ba si yàgg ñu mu ngi si biir commune ba ñu mu ngi sa koñ war nga xam c'est une réalité ñëw na am na fi ku nekk na ci bàyyi xel donc depuis lors aussi maire mbaaw toogul croiser les bras ba mu tàmbalee semaine bu njëkk bi dañu ne stade bi nga xamante ni fii la ñëpp di daje nañu ko tëj ndax euh, lieu la ba nga xamante ni mën na indi contamination ñu tëj bi bi ci des ñu ne nañu jàppale nit ñi ci ay produits si la ñu duggee ci marché yi jox leen lu ay jumtukaay yu mën a raxasoo yu mën a fexe ba feebar du leen du leen dal si quatre marchés yi dem si cinq postes de santé dafa ñoom la même chose fa jigéen ñi nekk di liggéey ci mbirum euh, jën ak géej yu demee noonu dafa ñoom laa même chose. garage de clando yi les sept garages de clando itam lieu de rassemblement la dem nañ fa aussi jox leen ab ji ay jumtukaay yu bari pour ñu moytu loolu. waaye aussi mairie Mbao génn na fi 50 tonnes ceeb ax yi mu war a àndal ci ay produits yëpp euh, yu baree baree bari duur ko ci population bi ñoom it parce que nit boo na toogal day am loo koy joxwaale mu toog. loolu xaar ñu ci état bi def nañu ko ba nga xamante ne population mi ngi siy sentir seen bopp bu baax a baax a baax tey it ñu daje woon fii euh, ak suñu ambassadeur bi nga xamante ne mooy ambassadeur bu Israël ñëwit ñoom di jàpp si xeex bi olof day wax na domp sax si sot la bokk ñoom tey ñu ñëw si jàpp si jàpp bu am solo ndax dañu ne dañuy jàppale waa banlieue bi bi ñu dañuy jàppale waa banlieue bi ñu jël 700 euh, euh, familles yu ñu war a dimbali 700 familles yooyu war a nekk ci ay communes yu mel ni Mbaaw Thiaroye Yëmbal Pikine alors si la ñëwee fii tey alors jël ay famille yu bari war leen jàppale ñu nit ñu favoriser si famille yi nga xamante ni vulnérable la waaye dañu bokk surtout si association des handicapés ndax euh, dañu boole ñaari métit métit ba nga xamante ni euh, bu lépp neexee sax la ñu bëggoon def luñ ko mën a defar nañ ko war a defee bon tey bu ñu demee ba mu naqari ba ku nekk tal sa bopp ñooñu aussi jar nañoo xalaat moo tax lii ñu indi waa Israël ñu ne daal balaa kenn laa am ñi nga xamante ni euh, yàlla tegoon na leen nattu ñooñu nañ leen xalaat ni boole leen si donc mu nekk occasion ba nga xam ne dañuy remercier di sant euh, euh, pays bi nga xamante ni mooy Israël